asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñuy seetaan e, fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew te di ñu topp fii ci seen seen bii di MKTV muy Muxaddamatul Xidma TV wala GMT ak mboolem ñi nga xam ne lëkkaloo nañ ak ñoom ak fuñ mën a nekk ci xeeti support yi ñu xam ne ci lañuy ñuy tasaare jumtuwaay xibaar yi. ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaara di leen ndokkeel di leen nuyu jiital nuyoo bi Cheikh mu Muntaxa di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko de am mbégte bu baax di ñëwaat ci seen jataay bi nga xam ne mooy émission gàggantiku bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma da koy def di ko jaarale ci seen yi nga xam ne moom lay jëfandikoo di ci ànd ak ay boroomi xam-xam euh, kiñ ci gën a ràññee nag te mu sawar ci lool macha allah di borom xam-xam bu tabee ci xam-xam ñu ngi koy ñaanal suñ borom mu yàggal ko fi te wéral ko muy sëriñ Mbacke Abdourahman ñu ñëw fii ci Daaru Salaam daam ngir fas yéene àndaat ak moom suñ benn jataay ci jataay yi gàggantiku yi mbokk yi nga xam ne it ñi ngi ñuy yónnee laaj yi ngir numéro yi ñu joxe woon yu ci bëri da eh, émission bi da am ñoo xam ne dañ koy dagg di ko dugal ci groupe yi ñu koy dégg faneen di laaj fan lañ koy toppee ak yu demee noonu kon émission bi nga xam ne daal ñun moom la ñu enregistré boo ko bëggee di ko saa su su duggee rek nga am ko da ngay abonné ci Moukhaddamatoul Khidma TV muy MKTV wala GMT TV ci YouTube su ko defee émission buñ dugal rek ci saa su danga ci jot mbokk yi nag da bëri ñoo xam ne ñoo koy daggaat di ko dugal ci eh, groupe yi ngir nit ñi mën cee jariñu ñooñu it ñu ngi leen ciy sant bu baax di leen gërëm su ko defee tamit ñu ngi sant mbokk yëpp yi nga xam ne ñu ngi yónnee ay message di ñaanal sëriñ bi eh, aw yiw di ko ñaanal gudd fan yàlla yàlla nangu seen ñaan yi Euh, su ko defee moo tax émission bii jàll ñu ngi doon wax ci julli ci njëlbeenu julli lañ doon waxtaan joxe woon nañ numéro yi ngir nit ñi indi ay laaj laaj yooyu nag ñëw na xaw a takku moo tax euh, suñu émission tey incha allah dañuy fas yéene jox sëriñ bi laaj yi ndax bokk julli di yàkkamte nañ ko leen tontu laaj ngir mu tontu laaj yi nga xam ne moo moo fi su ko defee ci biir loolu ñu ngi nuyu sëñ Abdou Khadir Bousso mi nga xam ne mooy réaliser émission bi ak sunu caméraman yi ñu àndal suñ bàcc ba ak mbokk yi nga xam ne moom la ñu àndal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 di siyaare waa daairatu Muxaddamatul Xidma ci njiitu sëñ Afe Busu al imam di rafetlu seen liggéey di siyaare mbokk yi nga xam ne yëpp ñu ngi topp jataayu xam-xam bi di leen ñaanal yiw àdduna ak àllaaxira di sàkku ñu ngi ko ñaanal barakallahu fika taala allahu baqaaka fina barakat xaadim rasul jërëjëf sëriñ bi kon mbokk yi bala tàmbali rek képp ko am laaju diine ni ñu koy waxee rek na ko yónnee ci whatsapp 77 531 91 98 wala bu ko defee sëriñ bi dana ci jot ngir mën laa tontu kon sëñ bi suñ laaj bu njëkk euh, mbokk bi dafay laaj mu ne ki lan mooy àtteb ki nga xam ne dafa faat ay julli yu bare bëree bëri li tàmbalee ci waxtu suba ba ci waxtu gee maanaa su koy fay ndax day njëkke julli yi ci suba wala day njëkke julli gee gi teew ba noppi da ko fay nan la koy fay dal loolu lay laaj waaw kay jërëjëf sëñ Abdul Ahad xam nga ci mosu yom Mali bi ñu nekk euh, ay julli yu faat ñaari xaaj la hmm. bari ak yu néew li ñuy tuddee kafirul fawaid ak yasirul mhm. wax ni nag julli yu néew la ndax bu fekkee ne suba ba gee la te gee faatagut kon ñeenti julli moo ko raw mhm. ñeenti julli ak juróomi julli ci yasir fawaid la bokk dañu wax ne ay bori julli yu néew saa yoo ko su la waree ak mhm. julli teew da ngay njëkk a fay bor yi kon gee na julliwutoon suba tisbaar takkusaan timis yooyu lay njëkk julli day ñëkk julli suba julli ko nañ ko baaxoo jullee mm. ñaar rakka béral ko julli tisbaar ñeenti rakka yellu ko julli gu nekk da koy boole liqaam ba agsi bu fekkoon nag ne day da ëpp juróomi julli masalan mm. tey daa faatoon ab bis ba jeex ab bis ba mu ak beneen julli mm-hmm. nga xam ne suba gi daal ba ca geneen suba ga juróom benn julli mm-hmm. tisbaar jot kon bu ragalee wax tisbaar jeex day njëkk julli tisbaar moom mm. loolu kafiiru fawaid la su boobaa day julli julli gi teew door a fay bu ko defee buy fay nag day tàmbalee ci gëm njëkkoon a faat di fay di ñëw ba agsi loolu waaye li am solo si Ibrahima ñu bàyyi xel ne julli uh-huh. dafa màgg màggaay goo xam ne nit wërta sabab looluy tax mu raw la uh-huh. maanaam ngànt lu rëy rëy rëy uh-huh. war tax nit sëriñ bi wax na ci aljawhar nawis ne na nga askan bàkkaar bu rëy rëy ci koo xam day faat julli ci lu ngànt bàkkaar bu rëy ndax nit bu wëradee sax du tey du tax julli waajib day julli na mën a jullee nit dana tëdd jaaxaan di julli ci noonu feeg muy mën a laab du wàcc kenn wàcc kenn kon na ngay na ngay la ngay am mm-hmm. ba tax julli yu mel noonu wàcc nit moom dana dana yéeme lool kon lu ma a moytu la waaye lu mën a xaw moom bu xasee amit bor la bu gàll ci loosu nit ki faaw da koy fay kon bu dee juróomi julli jëm suuf day fay julli ya door a julli julli gi teew bu doon timis mi nga xam ne dafa gàtt sax du tee day fay julli yi doon dana timis raw ko waaye noonu lay def incha allah mm-hmm. sëriñ bi laaj boobu leer na ci mbokk mi <coughs> mbokk yi dafay wax ne euh, soxnaam si daal dafa fay génn néegu néeg néeg bi muy sëyee maanaam fay lu mat juróom-benn weer ci biir juróom-benn weer yi nag dafa topp di ko ñaan baat rek di ko ñaan baat di ko ñaan baat ba mu yàgg mu jekki-jekki may ko baat waaye nag bi mu ko mayee baatam amul lu may toog lu mat ñaari weer rek dégg ñu ne soxna si mayaat nañ ko keneen muy laaj ba xam ndax moom ñaari weer yooyu mu toog rek ñu may ko idda ji dafa jeex wala ci biir idda lañ ko mayee ndax buñ ko mayee ci biir idda ji sëy bi day dagan wala du dagan waaw xam nga idda mi ngi bi ñu ko fasee mm. idda mm. ci fasalee tàmbale bu toogoon atum yàlla jaxasoowut ak moom mm. bu ko fasee bis bu ko fasee la juróom benn weer yi mu fay ak yëpp yorom nekk yëpp yitalu ndax boobu soxna la uh-huh. idda mooy kiñ fase bi sëy bi jeexee boobu lay tàmbali ba am ñetti laab wala ñetti weer kon moom bu fekkee ne ku toll ci gis baax la ñaari weer jàpp mën na ñetti baax xaj na ci ba boog lu yéeme lay doon mhm. su boobaa nag day jàpp ne kuñ mayee ci biir idda la te loolu nag bu fekkee dañ ko may keneen kooko jaxasoog moom ci pas-pas boobu lislaam day tas sëy ba te dañuy araamante ba faw mhm. loolu moo tax mhm. bu fekkee dañ ko ko may nag ñu xam ne baaxul ñu tas ko jotu ñoo jote bu idda jamatee mën nañ ko ko mayal waaye ñu bàyyi xel ne idda mi ngi tàmbalee bu fase amee moo tax kuñ fase woon te yëgoo ko sax ba idda jamat deesu ko fay misaal nii ba naa fas soxnaam soo soxna soo xam ne ci misaal weesu na gis baax ñetti weer lay iddawu mm-hmm. mu fase ko toog ñetti weer dool ko ko wax idda ji jeex na mm-hmm. ndax moom keroog ba mu ko fasee rek idda ji tàmbali tàmbali waaw ci la tàmbali moo tax lu mu yàgg-yàgg te jotewuñ it bu ko fasee duñ limaale la jàll ne jotewuñ ndax idda sëñ laa du mbirum amu na wala amu dong mm-hmm. loolu ci bokk am na ci loo xam ne mbirum jaamu yàlla la bi dalil jigéen ji nga xam ne dañ koo may nit jotuñoo gisee borom këram faatu day iddaw mm-hmm. donte jotewuñ donte jotewuñ kon ñu xam ne idda du rek gëstu ba xam am ngu na wala amut ci la mm-hmm. bokk nag mm-hmm. waaye du loolu dong ndax am na ñoo xam ne bu doon loolu ki nga xam dem na ba gisatul baax mënut am doom kooku buñ ko fase woon dañuy jàpp ne kon idda waru ko te ñooñu dañuy iddaw ñetti weer kon jaamu yàlla da cee nekk te loolu faaw ñu di ko bàyyi xel bu ñu ne rek xëy na gëj naa jotee moom kon ambut kon jërul mu iddaw déedéet jaamu yàlla da cee nekk maanaam ñaari weer yi daal taxul idda ji jeex moom ah moom daal bis bu ñu ko fasee ci la iddaam tàmbali léegi nag bu fekkee gis na fi baax ñetti yoon ci doon ci ni ñu koy waxee ne mooy ñu fase ko mm. ci laab goo xam ne jotuwut ak moom mm. mu dox ay fan gis baax genn laab jàll na mbërëg moom mu ñëw toog ñeent wala juróomi fan set laab ñëwaat laab gu doon fukki fan ak ñaari laab jàll na mbërëg ñëw ñëw laab ñëwaat ñetteel laab googu nag bu jeexee ba mu gisaat baax rek da jaman waaw ah, fi ne waa ji kon mën naa def traitation mën naa am soxna si xëy na gis na ñetti baax te te matul ñetti weer ak nangam waaw mën naa am na ñu koy wax nga xam ne bu fekkoon ne masalan tey da koo fase tey bis bi mujj ci weer wi ci la ko fase mu gis baax hmm. maanaam maanaam mu toog benn bis gis baax hmm. baax bi xëy na doon ñetti fan ñaari fan set mu toogaat fukki fan ak juróom gisaat gisaat baax loolu am na ñu koy wax ci diir bu gàtt buñ jàpp waaye loolu bëriwul lu muy am hmm. waaye amoon daal faw daal nañu xool ba xam ndax ñetti weer yi gis am na ci ñetti baax maanaam nga xam ne romb na fi ñetti laab bu mhm. am na moom idda ji jeex na kon buñ ko maywaatee baax na mm. kon mbokk yi li ñu war a xam mooy idda ajuñ ko ci ak fukki fan yi ñu wax rek eh, ci ñetti ah, lañ ñetti weer mooy ki nga xam ne gisatul baax ki gisatul baax wala mënagut a gis baax ndax gone mhm. kooku moom ñetti weer lay toog ci weeru julli di nag la mhm. waaye ki nga xam daa tul gis baax moom mën naa doon at sax léeg-léeg ndax baax bi yéex yéexi da koy xool bokk na ci lu mat di moytu moo tax nit am doom nga fase ko ñu koy def njuumte rëy la mhm. am doom nga fase ko fekk bu buy nàmpal du gis baax dëgg la kooku mën naa iddaw at waaw idda ji mën naa idda mën naa yàgg lool ndax faaw day toog ba gis baax saw saw bu am bokk yi bëri dañ daan daal daal ñetti weer ak fukki fan ñoom te duñ ko natt ci mbaax te loolu it bokk rek lislaam atte maanaam xëy idday ku faatu mooy doon ñeenti weer fukki fan mhm. waaye nit ñu fase moom ñetti laab bu dee gis baax bu gisul baax ñetti weer ñetti weer julli waaye ñi toll ci gis baax moom dee duñ xool ñetti weer man na ko ëpp mën na ko yées léeg-léeg ñetti weer ñetti baax yi doon at sax fi ne ci ñi nga xam ne seen baax dafa normal hmm. jërëjëf sëriñ bi la laaj boobu leer rek moom laajam bi xam naa ne dafay laaj dafay laaj ne lan mooy mbiri nasaraan yi dama xamul nag xëy na yéefar la ci jublu ginnaaw bu ñu faatoo ndax dañuy dugg àjjana wala déet ndax ak lan lan lan diggante kéefër ak ñi nga xam ne dañuy am diine lu luy luy di teqale maanaam baynal kéefër wal masiixi waaw xam nga nasaraan ahlu kitaab si fa am ñuy wax ne koo ci xam ne yëg na ne yonentu yàlla Muhammad yàlla yónni na ko hmm. ba nag mu lànk bañ koo gëm ñooñu ay yéefar lañu ndax inna diina inda llaahi l-islaam hmm. wa man yabtaghi ghayra l-islaami diinan falan yuqbala minhu hmm. wa huwa fil aaxirati minal xaasiriin koo xam ne nag yëgut ne lislaam ak am na ñooñu dañ leen yëgal ci ahlu fatara suñu borom yomal xayma da leen di nattu bu nattoo ba noppi nag yóbbu leen fa leen di yóbbu fa coobareem waaye koo ci xam ne nag xam ne na yentu yàlla Muhammad yàlla yónni na ko mu yëg loolu te gëmu ko kooku yëfar la moom kooku la bu ko defee diggante nasaraan yi ak kaafir nasaraan yi ay yëfar lañ ndax am na pas-pas yoo xam ne ku ko fas yéefar ndax ku des ci nasaraan jàpp ne diine la ba tey nanguwoo dugg ci lislaam day jàpp ne yéefar la ndax yonent yàlla moom xasee ñëw képp ku yëg ne yàlla ko yónni hmm. nga yëg ko te nangu loo ko yéefar la bu dee ku ko yëgul nag hmm. ñooñu xëy na am nañ gàntul bu yamal xam ne dañuy bàyyi suñu borom nut leen ndax suñu borom du mbugal wa maa kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula hmm. mooy li ñuy tudd ahlul ak bu ñuy wax diw jàngoon nañ ko te ci bi wax sarte julli bulooku daawa nit balaa nekk mu kàllaf balaa nekk mu kàllaf day nekk day nekk day day day yëg ne woote bi lislaam am hmm. na bu yàlla wala am ñoo xam dañoo ne ci barab yëguñ luy lislaam xamuñ luy nekk ay chrétien wala ay juif ñoom ñoom dañuy bàyyi ak seen borom boo liggéey hmm. waaye ku ci xam ne lislaam ñëw na yonent yàlla Muhammad ñëw na nga dégg ko te gëmoo ko yëfar la donte nag jëflanteeg ñoom ahlu kitaab am na jëflante gu lislaam maye ñu jëflante ko ñoom te mayewu ko ci ñi nga xam ne dañuy jaamoo sawara wala gëmuñ dara hmm. mën nañoo takk seen jigéen mën nañoo lekk seen ñam loolu lislaam a ko santaane waaye nag taxut mu génne leen ci ñàkk doon jullit te diine léegi moom jenn diine amul lislaam ku koo xam ne ne yëgu ko nag kooku am na ngànt xam ne boo ëllëgee dañ koy bàyyi suñu borom ci coobareem hmm. jërëjëf sëriñ bi mbokk ah, mi dafay laaj mu ne ndax dara dagan ci jullit bi mu muy liggéey ci entreprise entreprise bi rek nee na li ñuy liggéey dagan na waaye nee na léeg-léeg gis na ne entreprise yi dañuy dem ci yenn banques yi di fa jël ay bor yoo xam ne dañ ciy teg intérêt mu ne ndax loolu moom mi ciy liggéey loolu da ci am bàkkaar wala dem waaw moom fekkee daal moom ah, xëy na anam gam ciy liggéey moom anam gu dagan la ñu koy liggéeyloo mm-hmm. ndax xam nga sëñ laa ni ñu ko faral di waxee jëmmi alal du ca yéen jëmmi alal ji mooy dagan mm-hmm. wala mu xaraam moom dafay liggéey liggéey boo xam ne jaar na yoon la muy def lislaam terewu ko ca loolu lañ koy fay mm-hmm. moom alal jëm jot anam gu dagan la ko jote mm-hmm. jëflante ñu mel noonu tere wu ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na jëflante yahood yi te ay lekkat riba la jëf yëpp daan na demlante ak ñoom ba muy génn àdduna am na mbubum moo xam ne dañ ko tayle woon ci ab yahood yi mm-hmm. kon daane wane day doon na jëflante ñoom waaye moom la muy jëflante ñoom ci anam gu dagan la kon bu fekkee ne yow lañ fay liggéey lu dagan la waaye bu leeree nag ne lépp dara daganu ci te yaa ngi jàppalante ñoom ci loolu moom jàppale na ci bàkkaar moom bàkkaar waaw liggéey bu dagan la ñu def waaye gis na daal ñoom ñu ngi leb ci banque di teg intérêt waaw xëy na moom bu fekkee xëy na leb ci am ko jëmee si waaye jëm ñi liggéey bi hmm. lépp lu jaar yoon la boobaa liggéey ci dara nekku ci leer na lool mbokk mi dafay laaj ne lan lan mooy atteb euh, moom daf nee dafay liggéey ci ci ndawal maanaam ab buuse la dal waaye ndawal gi mu liggéey nee na euh, dañuy koy xooj suñ ko xoojee nag su koy yëkkati di di di di di ko teg fee ak yu demee noonu gis na ne dana am luy rogalaat di dal ci ay yéeram te ci yére boobu lay julli ndax munu cee ñàkk julli ndax këram dafa sori te munu faa dem di changé te kon mën naa am ay waxtu julli raw ko loolu lay laaj ba xam ndax lu ci lislaam wax waaw xam nga ndawal hmm. du ne deret yëpp sobe la hmm. ak damul mas foofu mooy sobe deret yoo xam ne ab gaañu-gaañu moo ko génne nacc buñ xar buñ koy rendi deret jooju nacc sobe la loolu di génn sobe la hmm. saa bu nit gaañoo fenn lay génn sobe mm. waaye bu ñu ren dee xar mi fees ko yàpp yàpp ko dara jëlee ci biir loolu mm. sobe loolu bat xam lool bu fekkee mel noonu la nga xam ne loolu mooy dal ci yére mën na ko julliwaat ndax loolu sobe masha Allah waaye doe bu fekkee nag bañ koy rendi la dara jooju mu sobe la mu taq dañ ko waaye lu mel noonu yi dañuy wax ne ñëpp ñi nga xam la ñuy liggéey ci sobe mm. dañoo sopp ñu wut mbubum julli moom buy xëy na def ci ab saagam mbub moo xam ne ngir julli la bu fekkee day jëflante sobe nga xam ne moom ab rendikat la toujours mi ngi ko mi ngi rendi mu di ko tis mm-hmm. kooku loolu la xam dara di ak ñi nga xam ne dañoo ay doom di nàmpal saa su ne am lu xale def ak ñi liggéey ci ay foos ak yu mel noonu mm-hmm. ñooñu ñëpp dañuy bëgg ñu wut mbubb moo ne ngir julli la nga xam ci kii ba julli jot ñu mën a dugg ci ndox summi yére su waxtu julli jotee mu summi sol wala julli képp koo xam da ngay liggéey ci sobe bokk na ci buuse euh. buuse bi nag ci buy rendee tax ñu wax waaye bokkut ak jaay ko ndawal bi nga xam ne bu jot ci ndawal gi fekk na ne loolu la wax bu dee loolu moom ndawal yàpp woowu ndawal gu euh, deret jooju du sobe moom ndax nekkul damul mas foofu masha Allah jërëjëf sëriñ bi mbokk bi dafay laaj mu ne ki nga xam ne dafay dund ci réew moo xam ne maanaa am jàmbur la fa waaye réew ma du réewum jullit mu ne ndax bu fekkee namm naa saraxe dana dagan ci moom mu jël saraxam booba jox ko ci kudul jullit wala déet waaw sarax bu nekkul sadaqa waajiba sarax bu war sarax bu war mooy asaka kooku moom dañoo sart ki ko jox na nekk ab jullit hmm. waaye sarax yi nga xam ne ñu sopp la jox ko ku dul jullit terewuñ ko te it aw yiw la laa yanhaakum allahu an alladina lam yuqaatilukum fi diini wa lam yuxrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim hmm. loolu ci birr jëme ci ñoom la koo xam ne du jullit waaye jëmewun ngaa nay jëme la nekkut di di di fas yéenee faagal la xanaa dajale dëkk ci jàmm. kooku mën nga ko sarax. donte tub jullit waa kër Ibnu Salaam am na xam ne seen yaay ñëw na Ibnu Salaam ñu tàggu si ne ko ndax man mën naa ko baaxee mu ne ko baaxee ko. bi ci sax mala dañuy wax ne mala ci boppam rek boo ca defee aw yiw am am teeba xam nga kooku mandaloon ab këlbu. Ibnu Salaam daan ne ca yàlla jégalee. saxaaba dañ ko laaj ne ko kon mala yi teebaa nga ci. ca la waxe woon ne fii kulli kabidin ratbatin ajr resul tooy wu ne tuyaaba nga ci ginnaaw mala yi la la ngay def ñoom lu baax yàlla bindul tuyaaba kon doomu aadama doonte du julit xëy na la ñu bañ daal mooy dimbalee ko ci loo xam ne luy dëgëral diineem la bu ko sarax sarax boo xam ne da koy dëgëral diineem waaye ku xiif nga sarax ko mu lekk ku rafale nga sarax ko mu woddu yow yëw la moom doonte ki nga ko jox du julit barakallah fi jërëjëf mbokk mi génn réew mi dem ci beneen réew waaye laata mu koy def daf ci diisoo ak yaayam yaay ji nangu ci mu dogu ci dem yaay ji ñaan ko yàlla ne ko yàlla boo àgg yàlla boo àgg nga ñaanal ko faatu daal ci yoon wi te moom dogu na ci dem léegi ndax dem googu mu dem ngir ñàkk jëfandikoo ndigal lu yaayam li euh, xëy na mën am ñuy jël gaal yi la wala ñi nga xam ne euh, mën naa am sax mu mu bañ a jël gaal waaye yàlla yaayam a bañ mu génn rek mm-hmm. loolu lay wax ne daal ku tukki daal te amoo ci sa ndigalul waajur wu jigéen ba noppi waajur wi yemu ci mu ñaan la yàlla ndax tukki boobu day dagal ci moom wala dem nga nag kilifteef wala boog war ma li dox diggante doom ak waajur du nag àgg ci bul tukkeeg bul def nangam euh. yooyu diine koy wax diine mooy joxe ndigal ndax war ngaa tukki wala war a tukki ah, yaay moom war na joxe moom am na cofeel mën naa bëgg ak bala mu neexu ko moo tax du wax ne topp ko ci yooyu farata la moo tax it nag ñaan ci yàlla jëru ko bi ci des si jaroon na xëy na leeral ko lu tax bëggul mu dem bu dee lu tegu ci sariya bu fekkee leer na ko bu demee de da koy dog moom nga xam ne dogu mbokk mën na caa juddoo loolu du dagan moom ndax dogu mbokk far jokk mbokk farata la moom bu fekkee xam na ci doom ñu ne bu génnee ba wutul fàtte ko man naa lu mel noonu tax suba yaay sañ na ko ndax kon am na warteef yi war ci doom ji te xam na ne bu génnee dootu sàmm warteef yi te bëgg ko sàmm loolu sañ na na neexu ko ak lu mën a xew daal eh, li gën ci eh, eh, diw day tukki fa jëm ndax lislaam maye na ko fa jëm anam gi mu fay demee lislaam nangu na ko subaa tukki bu moom day dagan mm-hmm. yaayam ànd ci wala baayam ak ñàkk ci ànd ñooy donte nag yu mel noonu yëpp nag la ci gën ci nit mooy rafetal dañ ko santaane ànd ci rafetal bokk na ca fexe ba déggoog say wayjur donte charia forcé wu la ci it waaye yow rafetal dala ca war a gén dala ca war a gétal waaye nag duñ ko àtte ne na walla Euh, bu ko defee day am bàkkaar mhm. fii ak mi ngi jokk li dox digg moom jërëjëf mbokk moomu kon euh, laaj bi leer na euh, mbokk bi dafay laaj mu ne daf bëgg a xam lan mooy nisaab nisaabu sàkkaatu asakay mbay moo xam pepp la ak yi ci aju wala mboq wala wala yu demee noonu ndax ne naag it ndax dana dagan ci dëkk bi nga bayee mbay moomu nga jël beneen dëkk boo xam ne bay woo jël asaka ji yóbbu ko foofa joxe ndax ak dana dagan asaka jooju nga jël ko jox ko kenn nit lépp bu jariñoo ko loolu lay laaj waaw bu dee nisaab maanaam li nga xam ne boo ko amee ci mbay asaka war la eh. li ci doon cosaan muy natt loolu nag moo waral buñ koy peese wuute di ci am ndax diisaay bokkut ak tolluwaay eh. waaye li ci kër asaka yi eh, déggoo ñoom bokk na ca bu dee ceeb mbaa pepp 752 kilos mooy nisaab. 750 kilos. bu dee gerte 375 kilos. bu dee ceeb wala pepp 750 kilos. waaw bu dee ñebbe bu dee gerte 375 kilos. 375 kilos moom sëñ Souhaïbou Mbacké radiyallahu anhu bu dee ñebbe 600 kilos. bu dee ñebbe 600 yooyu lañ jàppandi ni nii. ku amul lu toll noonu daal génne asaka warul ko. bu ko xasee am na nat nag bu dee mbayum nawet la. Hmm. da nga koy diviser par 10. boo ko séddalee 10 la am la jox mooy asaka ja da koy diviser par dix waaw maanaam fukkeel ñuy génne waaw bu dee mbayum noor boo ko diviser dix xaajaat ko xaajaat bi nga xam ne da nga ko roosal sa bopp sa bopp waaw kooku moom xaajaal xaajaatu fukkeel bi xaaju fukkeel ngay génne bu dee bi nga ne suñu borom nag moo taw moom gàncax fukkeel bi ngay bi ngay génne waaw bu ko defee nag asaka boo ko génnee yàlla moo wax niñ koy jox innama sadaqaatu lil fuqara wal masaakin juróom-ñett yuñ ci alxuraan bu dee asakay mbay nag asakay mbay aku jur hmm. wërta génn fi ñu ko doon bayee foofu nag fi ñu ci jublu mooy masaafatul xasari maanaam lu matul 72 kilomètres foo ko fa joxe baax na bu dee diggante dëkk yoo xam ne soreewuñ noonu la ñu bañ daal mooy nga jëlee ko fii dox juróom-ñett fu kilomètres di ko jox keneen. fi nga daal ak fa nga joxe bu bu mu génn 72 kilomètres. waaw bu mu génn 72 fekk ñu ko aajo wane fa. Mhm. te fekk ñu ko aajo wane fa waaye bu fekkoon te ne mbay mi da ngaa bàyyi fii ñi fi nekk ñëpp nekk ñu doylu moom mën ngoo génne yóbbu fa mhm. ñu ko aajo woo ne fa. waaye nag bu fekkee da ngay romb ñu ko aajowoo. Eh. moom sañoo romb 72 kilomètres. waaye nag biir 72 kilomètres dañ ko jàpp benn barab. moo tax ay dëkk mën nañu nekk nii dëkk nekk nii dëkk nekk nii nga jëlee ko fi beneen fekk ñu ne ñàkk ñi waaye benn lañ day jàpp ne yëpp ci biir gox bi la. Hmm. bu génn gox boobu la ci bañ. te loolu ñu ngi ko wax ci asakay mbay ak ak jur. bu dee asakay xaalis moom yow borom xaalis bi fi nga dëkk ak fi xaalis bi nekk. fu eh. ci nekk mën koy joxe. maanaam nit mën naa dëkk Touba di liggéeyee Kaolack masala eh. hmm? mën naa génne asaka joxe ko tubaab mën na génne asaka joxe ko Kaolack mën na koo seetlu ñaari barab yi mm-hmm. mu des ndax manis naa jox asaka jëpp kenn nit waaw bu fekkee ni ëppul dundu atam maanaam kenn nit deesu ko jox lu ëpp dundu atam maanaam nit ki daal tey boo génne asaka mën ngaa xool li muy dund ci at mi lépp li ci lekk li muy naan li muy fay ndox yooyu yëpp aju yooyu mi jeex nga jox ndax loolu ku ko xas am nekk nga xam ni mm-hmm. te nit bu xasee woomal kenn wutu ko jox asaka moo tax kenn du jox nit lu ëpp atam atam kenn du jox dund atam waaye boo dund atam nag man si na ko jox léeg-léeg nga ne ci xaala boo xam ne xëy na ne foo koo xam ne ni euh, mën naa am ñeneen ñu ko aajo ñu bari nekkuñ fa mën nga koo jox loo xam ne moom at mi doy na ko sëkk dund ak lim aajo aajo yëpp nag ci biir mi ngi ci xaj na koo xam daal boo ko joxoon juróomi million wala ñett million moom li mu soxla ci àdduna lépp ci li muy lekk li muy naan li muy fajoo yëpp mañ ca li muy fayoo ndox li muy fayoo courant foofu la ñuy yem bu ñu xoolee ne li mu aajowoo ñetti million la waroo su ñetti million moom bu dee un million dong doy na ko ngir dund atam million waroo ko weesoo moom ndax boo ko xasee jox nekk na xan yi nekk na ku woomal te ku woomal des na bu ñuy wax faqir mooy koo xam ne amul dund atam kon ku am dund at nekkutoo faqir hmm. hmm. jërëjëf sëñ bi xam naa ne laaj boobu moo doonoon suñ laaj bi mujj Euh, ñu ngi lay sant bu baax di la ñaanal di la bàyyee kàddu gi nga tàggatoo ak bokk yi lay seetaan. jërëjëf sëñ Abdou Lahad yéen ñu ngi leen sant bu baax sant mbokk yi nga xam ne ñoo am yitte seen diine ñor leen ñuy topp jataay di yónnee ay laaj. Mhm. ñaan yàlla dafa leen tawféex dafa leen taysiir lu am solo la. Mhm. ndax diine dis ko làmbatu te it nag kersa amul ci diine nit lu mu xamul da koy laaj. Mhm. Euh, ndax mooy tax li ngay jaamu yàlla mën ko nangu borom bi subhanahu wa kenn du ko làmbatu liñ koy defal mm. bañ ko ko moo tax mu yebal ay yonent jox leen téere wax ñoom sax duñ fetal kon nag diine ji lépp luñ ci def dañ ko war a xam kon am na solo lool li nga xamul nga laaj ko ñu leeral la ko nga dox ci ak ak lu leer mm. yàlla nu yàlla boole dimbali defal ñu tawfeex nangul ñu yu baax yi ñu def yëpp mm. suturaal ñu ñu ngi jéggalu ñëpp baala ko ñëpp suñu laat asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu yow tamit ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax suñu borom gën laa dolli kàttan ak wér ndax wax dëgg yàlla tabe nga ci sa xam-xam lool coono yi lu mu bëri bëri su laaj yi dajee wala nga war a nga war a gàggante ab tomb da nga ci sawar lool kon nit ñu ngi lay ñaanal suñu borom mu kattanal la te gën a dolli sa wér gën a leeral sa dënn ba nga mën a joxe li nga xam ne yàlla baaxee na la ko ci xam-xam di sant it bokki jullit yi nga xam ne ñoo ñu doon topp ak fu ñu mën a nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di leen ñaanal tawfeex ak taysiir seen émission gàggantiku kon fii la ñuy yam incha allah dig leen beneen jataay boo xam ne dana amaat ci weer wi di ñëw incha allah ñu ngi sant mbokk yi nga xam ne ñoom lañu àndaloon muy sëriñ Abdou Khadir Bousso sëñ bàcc ba ak sunu beneen caméraman bi sëñ alaaj Jaañ waaw ah, su ko defee jox leen dig dajee rek ci numéro bi ñu leen wax léegi képp ku ci yónnee ab laaj rek ci whatsapp ah, danañ la tontu muy 77 531 91 98 wala nga yónnee ko ci numéro 78 Euh, numéro 78 678 57 66 boo ci yónnee da nga da da nga jot da da da dañ la mën a tontu ci laaj bi ñu ngi sant Serigne Abdoulaye Lo mi nga xam ne moom la ñuy moom ñuy jàppale ci liggéey bu baax di leen sant bu baax di leen gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu jaalhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam